may Maymuna Karim Wade bu soob yàlla léegi nga gis si réew bi incha allah. kaña non yàggatul. ay waxal dat. non mën wax dat. mën wax dat devant le peuple et devant l'opinion kon damay def damay juum. parce que man ma wax dat nii. Assane yàgg ngeen wax lii. non dafa loolu yàgg nañ ko wax. mais 2019 bi maa ngi ñëw ma bokkul El Hadj Amadou Sall Omar Sarr la situation a évolué assuré que la situation a évolué yéen ñëpp xam ngeen ni Karim ko jëngoon. wutal ko passeport ci biir kaso bi dugal ko ci auto administration pénitentiaire dem dugal ko ci benn jet privé ñu yóbbu ko Qatar point mais point lié. waaw mais am loolu loolu am na. mais am na dafa nànk rek dafa nànk rek dafa nànk rek si nànk rek ñibbisi ñibbisi ko ah, ñibbisi ñibbisi Karim nag ci moom la dépendre ak ak timingu parti bi ñun ñooy seet moment bi nga xamante ni juge nañu que c'est opportun mu ñëw ci yàggatul ensuite. Euh, révision Qatar révision procès bi mais ça n'a rien à voir avec la candidature c'est pas lié un procès on peut le réviser dix ans quinze ans vingt ans après c'est c'est pas aujourd'hui aujourd'hui ce n'est pas lié un peu à sa posture de candidat à l'élection présidentielle encore que c'est un protocole politique boo xamante ni l'État du Sénégal est signataire c'est le comité de développement des Nations Unies qui a demandé cela def injonction à l' état du Sénégal may ko six mois pour ñu procéder à la révision de l' acte de culpabilité c' est important l' acte de culpabilité ba pare ni nañ ko indemniser. waaye mais révision ah, bu ñu waxee loolu kay ba pare. attends attends révision d'un procès révision d'un procès on parle c'est-à-dire aujourd'hui c'est une institution supranationale. par rapport aux normes. aux lois nationales moo moo jël décision boobu moo tax ñun nous sommes parce que ñun dañu sentir dañu tooñ ñu yóbbu leen foofu ñi nga xam ti ñoo fa nekk loon état du Sénégal li ñu wax ci li ñu fa war a yépp mais bi ñu seet dañ leen rax parce que simplement état bi bëggoon lool donc voilà loolu la ñuy tuddee un état voyou. non Assane yaa ngi jaxase. un état jaxasuma de. yaa ngi jaxase déglu déglu Ablaye rek s'il te plaît état voyou mooy un état qui ne qui ne s'applique pas. il faut le il faut revoir des termes. defal nank rek nous sommes dans un état de peuple. waaye defal nank rek. un état voyou du dara laissez-lui la responsabilité. un état voyou du lenn lu dul un état qui ne respecte pas les lois. tu es un produit de cette defal nank rek mais itam du tere. tu ne peux pas non mais li muy wax ci révision procès du noonu. ah waay def non xam nga noonu la. déedéet affaire bi amul benn loi supranationale. bu ñu am non attendez déedéet déedéet. waaw loolu comité droit de l'homme moo ko protocole politique. waaw comité droit de l'homme moo ko léegi comité droit de la hiérarchie non norme comité droit de l'homme les naa naa ci ñëw non ah, ma diwee seen Ablaye Ablaye maa rek ñoo bokkoon ndaa fu ñu naanee dégg loolu da nga ci war a ànd sax yow parce que wax dëgg yàlla alors moo tax tey bu état Sénégal nangoo acté la révision du projet de Karim ci loolu ñun dañ si kontaan parce que lépp lenn lu dul enfin l' état qui était voyou aujourd'hui revient à la nécessité d' accepter les décisions euh, des décisions de protocole ah, ah. qui sont au dossier donc loolu c'est important ouais. mais encore une fois okay. n'a rien à l'acte de candidature que Karim Wade a fait Et Inch'Allah Rabbi, sous peu, il sera là. Merci. Et, et nous, je t'inviterai d'ailleurs, à ma qualité de chef de l'organisation, uh ah, -huh. Ah. pour que nous couvrir son retour, Inch'Allah, ah devant non, le peuple sénégalais. Interview exclusive, man, <laughs> Absolument, ah. absolument. <laughs>